ginnaaw bi mu santee Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mi jëkk dugal loxoom ci dimbali ñu loru ci mbënn mi ci Touba sant Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadir mi mu teg liggéey bi ci loxoom kuréel bi nga xam ne moom la sos di junnatun liman nazamahu mi ngi sant ak di jaajëfal mboolem ñi nga xamante ni dugal nañu seen loxo ci biir liggéey boobu yi ngir jàppale askan wi te bokk ci ñoom ay këru liggéeyukaay yu ràññeeku. وجنة kon jërë ngeen jëfati waaye liggéey baa ngoog di wéy junnatun liman nazamuhu di ci woo ak di soññ mboolem ñi nga xamante ni am nañu yéene tàbbi ci liggéey bu am solo bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides moo ko door ngir génnee bokki taalibe yi ci jafe-jafe yi ñu am ci ndox mi kon nag ñu ngi soññee tey fas yéene ànd ak ñëpp ba keroog ñuy am bëggug Cheikh Mouhamadou mun Mbacké ay wëleen murid mën ngeen tàbbal seen barkeelu ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci junnatun liman nazamao di taxawu ñi loxo ci mbënn mi ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba mën ngeen ko def ci Free Money ci 76 955 71 wala Orange Money 77 471 73 04 seenu barkeelu mën na jaar aussi ci Wave ci 76 624 83 20 bu ngeen nekkee ca bitim réew te bëgg ko jaarale ci Wave tur wi mooy Touba junatu wala numéro compte yi nga xam ne moom moo affiché ay wëleen murid gaaw roy ci Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ni moo njëkk jëf ci liggéey bi